ci biirum mhm. yoon bi nekk doon naa séntu ñu woo ma waaye maa ngi ci sant yàlla ndax biñ ma wooyee dem naa wuy ji leen ma fekk fa ñu dal ñu poussé ma ay question ma tontu ci yi nga mhm. xamante ne moom lañ ma laaj muy vidéo bi ma def ne gëw ma ko fu ma ko mhm. teg indi ci ay leeral ginnaaw bi yéen ma defaat vidéo ne gëm naa ko fu ma ko teg nga ni ci leen ndax bi ma dee gëw ma ko te bari ñu bari dañ may diglu docteur yi ci boppam ñoo ma woo leeral ma indil ma preuve wane na am na li nga xam ne sukkandiku woon nañ ci man ne gëwuñu ko ma indilaat leen ay leeral ne leen docteur sàngamkat ci Touba muy docteur si la mën na maa tudd turam te di ko nuyu moo ne ma nii ak nii la maladie bi dikkee ci Touba kii ak kii la dal nangam ak nangam ma xam ci leer ci laa jugaat nag defaat vidéo ngir waxaat ak population wu Touba pour leeral ne leen effectivement ci ñi ma jokkool liñ ma wax tam mu dal sama xel wax nañ ma ne ma effectivement doomu jàngoro bi dugg na kon nag li ci war a des mooy ak cet ndax loolu sax yonent bee ñu ko njëkk a njëkk a sant alxuraan sant ndax i juróom yeeg jaamu ma def cete ci biir mm-hmm. ci loolu ñu topp li nga xam mooy tegtalu docteur topp li nga xam ne ni wax nañ ne noonu lay dikk ci doomu adama ñu xam ko xam nañ ko noonu lañ koy wattandikoo. Mhm. Mhm. léegi nag bu amee réew mi yëngu na ku ne xam ne doomu adama yi tiit nañ ñu ngi mhm. wax ne danañ def tournée boo xamante ni kii euh, état d'urgence mën nañu tëj dëkk bi kenn du dem kenn du dikk kon ci des rek mooy tàllal loxo ñi nga xam ne ay borom alal lañ ci gestu ñi nga xam ne ay néew ju doole lañ ci ab dund ci waajtaay ak wax leen nan la ñu moytoo doomu jàngoro ndax ku ne ci mën a sonn waaye rawatina ki mënalul boppam dara dëgg la ñu nekkal muy Cheikh Mamadou Moutakha xàll na yoon wi muy joxe na addiyam loolu nag da ko tijji bunti àdduna bépp nag ndax zakat la sarax kii dimbali ki nga xam ne yaa ko tane loolu lool lislaam moo ñu ko ci ponk lislaam yi la bokk kon nag képp koo xam ne yàlla mënal na la dara rek nga génne ci sa alal dimbali ñi nga xam ne seen loxo ci seen ginnaaw ci sensibiliser leen ci wax leen nan lañ moytu doomu jàngoro bi ak buñ demee ba tëj bunt yi nga xam ne bi mu dañ daan sonn rawati naa buñ demee buñ tëj dañ daan sonn rawati naa buñ demee ba alors ndax foofu ci Touba Mbacké yéen a ngi sàmmoonte ak mesure de prévention mesure d'hygiène yi nga xam ne joxe nañ ko di sensibiliser waale tamit askan wa fa féetee waaw Touba moom ñu ngi ci sant yàlla ndax ci li nga xam dégg nañ docteur Dieng wax na ne cas yi nekkoon Touba mhm. loolu nag dañ ci sant yàlla ndax loo xam ne dañ doon tiit ñu naan mën naa yokk mën naa dem ba daj dëkk bi ñu naan dañuy julleeg dañuy julli coow yi am ñu sonn ci kasarajo bi docteur bi fi nekk génn wax ne li fi nekkoon tane na kon donc dañ sant yàlla. Mhm. di ci julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan it mu yokk ba nga xam ne fépp ci Sénégal laa ñu naan tawati coronavirus. kon ñu sant yàlla ñu ngi ciy sensibiliser nit ñi ñu wattandiku yenn barab yi ak jaxasu bi ak ak ak joxante loxo bu bari beeg ak yi nga xamante ne docteur yi joxe nañ ci tegtal te comme ñun ku ci yi nga xam te mooy ak tegtal la yoo xam ne ñoom la ñuy jox ngir mën a wattandiku doomu jàngoro waaye fi mu dugg nii moom ñu ngi ci sant yàlla Touba ñu jàquñu rafuñu amul lu ñuy def di jaamu yàlla euh, gëm yàlla nañ ko gëmee woon toog di xaarab dogal rek lu ñëw ñu sant lu ñëw ñu sant muñ rek loolu daal lañ ci lañ ci jëfandikoo fi mu toll di teg. d'accord sant nañ la gërëm nañ la sëñ Moustapha Messere jërëjëf jërëjëf soxna si waaw kañ jërëjëf euh, mu nekkoon euh, seriñ Moustapha Messere ñu doon waxtaan ak moom euh, ca Touba Mbacké dégg nga li nga xam ne wax na ko mm-hmm. gis nga ko de wax dëgg yàlla kàddu gi rafet na mm-hmm. wax na it daal dinay sensibiliser ñi nga mm-hmm. xam ne ñoom ñooy Touba ñi fa ñi fa askan fa dëkkee waaw kàddu kilifa la ñu koy ñu koy